cofeel rek cofeel ak euh, bëgg waa Médina li ko waral mooy comme ni ma koy waxee saa su ne bu doon donte benn kaasu attaay laa dinaa noon sama wët fi ma dëkk ñooñu contribuer nañ sama développement xëy na kaasu attaay boobu ma naan moo tax tey ma am doole am cawarte bi nga xam ne dinaa mën dimbali ñu dañu donc foofu di misaal la rek damay misaal waaye waa Médina ñoom ñëpp dañu contribuer sama sama sama développement ma leen di delloo njukkal rek lu ma am rek bokkaa ñoom defe naa loolu rek la du leneen ñun suñu wareef ñun ñi nga xam ne fa la ñu jugee yàlla war wërsëkal ñu si xam-xam wala si am-am lañu war a si medina encadré xale yi ànd ak pour que medina aussi nekk une une cité émergente defe naa loolu la wëy am nañu programme yu am solo pour medina defe naa si euh, moyens yi di ñëw dinañ ko doxal dinañ ko wane ba nga xam ne ñun li bëggal medina defe naa euh, fu neex la fu lu neex la te defe naa nit ñi bu ñu ñemee rek dina baax incha